kon mbooloo mi maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu jataay bii nga xam ni am nañ ko fi tey muy conseil interministériel boo xam dañu koo jagleel mbay mi surtout ci campagne bii nga xam ni dafa war a tàmbali te du yàgg déglu nañu waa météo am na lu bari ñu fi wax déglu nañu ministère de l'agriculture mais liggéey bi xëy na tey la feeñ mais ren dañ ci amoon ci ndigalu président de la république beneen doxalin mooy ni gisee suñu biir en tant qu'administration gis acteurs yëpp waxtaan ak ñoom ñu doog a daje ndax dafa am ay jàngat yu bari yoo xam ni def nañ ko ci hivernage bi passé bi ñu defaree jàngat yooyu yëpp président sant gouvernement bi fàttali ni ko mbay daf ko soxal ndax lu muy jariñ d'abord ci dañuy dund te gis ngeen ni ministère de l'agriculture daf ci yokk souveraineté alimentaire maanaam askan bi mën a bay la nga xam ni moom lay dundee jariñ ko mu bëgg aussi koom-koomu réew mi mbay continuer di ci jouer lu am solo ndax genn wàllu population bi mën nañu wax ni ci mbay lañu ñu campagne yi nag gouvernement yàgg na ci def alal deux mille dix neuf ci ñeent fukki milliards deux mille ak léegi yàggul ren mi ne béykat yi nañu fexe ba def fa téeméeri milliards ba pare mu wax ñu la nga xam ni mooy gis-gisam ak mooy bëgg-bëggam. pour que résultats yi nga xam ni yàgg nañ ko am ren jii ñu am ay résultats yu ko ëpp lool bu ànd ak ndogalu suñu borom ndax buñ dee wax ci wàllu céréale bi fi président ñëweeg léegi production bi ful nañ ko ñetti yoon am un million cinq cent mille tonnes léegi ñu ngi ci trois millions six cent mille tonnes gerte aussi lañ doon am ful nañ ko ñetti yoon mu de nañu xool ci wàllu aménagement ci wàllu semence ci wàllu engrais nan lañ koy doxalee ba ñëpp mën cee jot nan lañ koy doxalee ba loolu amal askan wi njariñ may féliciter ministre de l'agriculture ndax boobu ba tey toogul wax nañ ci lu bëree bëree bari ñëw na fi lu bëree bëree bari ay services am liggéey nañ ci lu bëree bëree bëri ministère de l' économie ministère des finance ak acteurs yi nga xam ni ñu ngi ciy yëngatu. mesures yi ñuy jël nag du ay mesures yoo xam ni dañ ko wax rek sànni déedéet ndax ni ma ko waxee léegi ci kàllaama nasaraan balaa ñuy def conseil bi. préparé nañ ko daanaka ci ñetti weer yoo xam ne gisee nañu lu baree baree ba suñu technicien sax daje nañ ci ay séminaire point bu nekk ñu xool ko ci aspect yëpp ndax it li ñu war a liggéey ci réew dafa bari ba loolu pare ñun fi ñu tolloon président war ñu yéeneem ni ëpp na loolu ndax bu ñu amoon rek li ñu defoon daaw quatre-vingt quatre-vingt-dix milliards doon nañu doy ndax soxla yi bari na mu ne déedéet nañ ko def téeméeri milliards mu am na lu ngeen fi jàmbat bi ci ëpp solo mooy seen diggante ak banques yi ndax am na ay bor yoo xamante ni yoreel nañ ko banques yi te boo yorelee banque liñ ko olof di waxee bor du am rakk banques yi duñ la mën a dimbaliwaat moo tax gouvernement bi dugal ci loxo ndax banques yi aussi am nañ njariñ ci système bi ba nga xam ne li desoon ci boru deux mille vingt et un deux mille vingt deux bu toll ci fukki milliards gouvernement bi dina ko fay ministre des finance dina ko fay ci semaine bii ñuy dugg jël na matukaay yi dina ko def mais nag mbay mi noonu lay fonctionner toujours li nga xam ni mooy deux mille vingt deux deux mille vingt trois facture yi ñu ci certifié parce que noonu la mbay mi di doxee dama bañ ñu ne bu ñu amee retard ci deux mille vingt et un lañ ko am dinañ ko fay tawal li ci des ñu ngi ci biir délai yi bëgg aussi loolu ñu gën ko gën ko gën ko leeral dinañu defal plan boo xam ni dina waxtaan ak banque yi waxtaan ak ministre bi pour ñu xool ni koy appuyer maanaam ni koy fayee ci at bi incha allah plan boobu dina ko joxe xëy na fii ak weer wi di dee loolu lañ ko sant ci diir bu gàtt comme ça ñu jëmbal ko président de la république mu bokk ci yi nga xam ni contrainte la koy def pour gouvernement bi mën ko exécuter fii ak at bi di jeex yeneen jàmbat yi nag dafa tegu ci crédit yi dafa cher loolu aussi ni ko waxee dëgg la te it opérateurs yi duñu am prévisibilité moo tax ren waxtaan bi nga xam ni ministre des finances ak ministre de l'économie ak yeneen acteurs yi waxtaan nañ ko mooy këyit yi ñuy jox opérateur yi dañ ci boole plan boo xam ni noonu lañ koy fayee loolu c'est extrêmement important day tax ka lay lebal xam kañ nga ko war a fay mais yow miy joxe kayit bi aussi nga xool soxla yi nga am yëpp ndax état dafa bari ay yitte bari ay soxla yan contrainte nga am ba nga xam ni booy wax ak nit ki di ko mën a ne lii kat ñetti weer la lii du doon mois de mars mois d' avril lay nekk wala lii mois de juillet lay nekk comme ça banque bi dina mën a xam nga mën a gérer aussi sa yi ci wàllu état comme aussi euh, séminaire yi ñu am je pense que loolu positif na ci ndax tey tax na ñu xool préoccupation yi nga xam ne ab dañ ko yem li ci des nag euh, ñuy wax ministre de l'agriculture di ko dolli félicité mook équipe am yëpp directeur yi fi teew di ko sant di ko gërëm di rafetlu aussi engagement bi nga xam ni am na ko ci wàllu agriculture ni mu ko bëggee mais surtout engagement bi nga xam ni am na ko ci defaral président de la république la nga xam ni sant na ko ci wàllu mbay mi ma leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm.